aussi nga xam ne mooy 72 heures yàlla yàlla may ñu egg ci jàmm te kenn bañ a manqué mbokk yi alaaji Wengal Mbaye nee na démb ca dëkk bi nga xam ne mooy ñafat en tout cas opposition bi ñu ngay marche waaye Macky Sall moom ma ngay baa ngay marche waaye Macky Sall ma ngay teg ay étape yoo xam ne bu gars yi tàngale fee moom mu seddal fee bu gars yi di mer fee moom mu ngay bëggal fa la ñëlee boo demee démb ca région Kaolack bi nga xam ne moom mooy Saalum démb Pape démb Biteye ak délégation yi nga xam ne cadre yi nekk nekk foofu ñoom Lamine Dieng ca euh, IPRES cadre yi nga xam ne nag ñoo nekk ca APR di directeur yi nga xam ne Macky Sall fal na leen boole seen doole démba woote nañu woote bu am solo waaye góor gi nga xam ne mooy Malaw Sow di député dafa def jëf ju rafet joo xam ne wax dëgg yàlla rongoñ tuuru na fa te def mobilisation bu mag nee na nag moom en personne li mu mën a garanti mooy xawma fu faay di am mais du jóge Kaolack li Kaolack wane démb nee na xaw ma fan la faay bi am ci région yi waaye ñoom Kaolack ñoom yóbbu nañ président Macky Sall ba pare <laughs> ñoom xam lu ñuy xaar résultat yi maanaam résultat premier tour ñu ne président Macky Sall amaan na mandat boo xam ne dafay toog moom góor gi maalaw nee na Sénégal incha allah président Macky Sall bu nekkee candidat te da koy doon premier tour 18 heures résultat yi daana ñoom ñooy gagné. ndax li ñu mobilisé amul kenn ku ko def ñu seeti alaaji Wengal Mbaay ndax loolu da koy firnde war firnde na ko Wengal Mbaay ca kaw Kaolack jàmm ji nga xam ne moo am diggante sénégalais yi ak opposition guvernement coow la lan moo koy indi jàmm ja lan moo koy indi lan mooy tax Sénégal yëpp nekkaat ci benn kenn ku nekk na nga doxal sax sa doxal buñ dajee ci ci ci pandaw ba nag ñu xool kan mooy am ndam ñu seeti asalaamualeykum dama ne bu ñii di coow fii ñii di dem fële kenn ku nekk ak ki doy ak kenn ku nekk sa tool yaa koy bay le président Macky Sall responsable politique yi nekk ca Kaolack démb lañu ñu def ca biir Kaolack gis nañu ñoo xam ne génn nañu seen gafa ñiy tàmmale ci ñaar fukki dërëm ci deux cent francs ci téeméer ñaar téeméer junni ba ñaari junni ba un million ba cent mille def ko ci barigo dajale ko teg ko yar ko yoonu pare jox ko président Macky Sall nee nañu li nga xam ne moom mooy candidature am caution bi ci boppam motee na fi nga xam ne mooy Kaolack xanaa yeneen région dañu ñëw mottali ñoom nee nañu président Macky Sall mii bu ñuy di xeex moom ma ngay ànd ak ñee uti jàmm yaatal massifié daa dee taxawal dëggal boppam 2024 day nekk président Alaaji Maalaw Sow bi nga xam ne mooy député daa dee rangale ci buntu këram 24 kaar kaar bu nekk mu teg ci ñaar fukki junni ne lekk leen lu la neex ñii mbaxalu saalum ñii domada ñii sandwich ñii sawarma ñii daal di jël mburaake ñii def cere ndimb ñoom ñëpp ñu ànd booloo ne njafat ñu ngi nii tey dañ koy ñaf ba mu saf sàpp te njafat ñu ànd ak responsable ñoom ñëpp ñu daal di daje ne président Macky sàll xaalis baa ngi nii caution baa ngi nii yoonu pale baa ngi nii ndam laa ngi nii booloo doole baa ngi nii yow yaay xool looy choisir waaye njafat nee nañu képp koo xam ne danga bëgg a gis sa gàcce te nekk ci wujjee politique bi yónneel nit Kaolack mu xool waa Kaolack nu ñuy nasee président Macky Sall toogaayam 2024 waykat ba nag waxoon na ko nee na ñafal ba mu saf ñafal ñafal ba mu saf léegi nag président Macky Sall mooy choisir moo waxagul waaye xale yi taxaw nañ waxal ko te ñi nga xam na ñooy cadre yi nekk Kaolack ñoom nee nañu ñoom ñëpp gis nañu ne ànd bi ak booloo bi mooy doole président Macky Sall. man nag Alaaji Wengal Mbaay nekkoon géwélu Sénégal transhumé naa ah. waaw ndax alaaji maaliw alaaji maalaw sa saw sama promotionnel de classe la moo ma gindi ah. na ma maa na ma wengal ma ne ko mbàyyi mu ne ma kaay xool li président Macky Sall nara Sénégal oh. ba ma xoolee dama yaakaar na ay gént la ba ma gisee dama xam ne dëgg la oh. moo taxit alaaji maalaw saw dajale na xale yi dajale kaar yi teg ci xaalis ànd ak ñoom gunge président Macky Sall comme léegi dootu alaaji wengal mbaay de géwul Sénégal alaaji wengal mbaay géwulu maalaw saw waaw waaw ngeen ne ah maa tey ngeen ne transhumé naa ngeen